اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سيغ اللسان أو وقوف بغير وقف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 wa nabbihna qabla almanaya min nawmati alxaflati walkasalaan wa aminna min cadaabi alqabri wa min su'aali munkari wa nakiiri wa min akli diidaan wa bayyid wujuuhana yawma albacsi waatiq riqaabana min anniiraan ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكنا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أهساننا وذهاب غمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم اجعله أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة ومنقذنا في الفتنة واعصمنا به من الزيق والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واسبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك سادنا والثقة بك ذخرنا واعتقادنا wa amin min aljuu'i walxawfi bilaadana wa saaira bilaad almuslimin bima fi dalika bilaadu filistin ya rabbal alamin allahuma ballig sawaaba ma qara'naahu wa nuura ma tarannaahu li ruuhi sayidina wa nabiyina muhammadin alayhi salaatu wassalaam wa li arwaahi aabaihi wa ummahaatihi wa azwaajihi wa durriyaatihi wa ashaabihi ridwaanullahi taala alayhim ajmain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 alladina yuminuuna bilxaybi wa yuqimuuna alsalata wa mimma razaqnaahum yunfiquun walladina yuminuuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil axirati hum yuuqinuun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun sadaqallahu al ngeen jëf mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noonu ngeen ko gisee ba tey ñu ngi ci màggal gi nga xam ne ci la ñuy fàttaliku sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke euh, ñu ñëw fii nag nga xam ni mooy kër sëriñ Fàllu Mbàkke moom sëriñ Abdul Xaadir euh, bi nu ñëwee nag fekk nañ ko noonu nga xamante noonu ngeen koy gisee ci image yi ñuy taxawal li nga xam ne mooy waxti juróom yi waaye mbokk yi am lu am solo loo xam ne am na ci incha allahu taala di ngeen ko gis ci sunuy image mooy sëriñ bi eh, am na liggéey bu am solo boo xam ne mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo aju ci kër sëriñ fallu Mbacke moom sëriñ Abdou Khadir ñoom ñoo am xalaat bu am solo boobu eh, ci eh, njiitul ñi nga xam ne ñoo jiite wàllu culturel bi muy lu am solo mooy dañoo gis ni mbooleem loo xamante ni dañ koy tudd muy ak màggal ci sëriñ Touba wala ak njabootam bokk na ca la ci ëpp solo mooy alxuraanul karim ji ni jàng ak xaside yi waaye jokk bokk gi ci am ak li nga xam ne mooy euh, istixfaar yi ñoom nag ñoom xalaat bu rafet mooy dañoo fas yéene waxtu juróom yi waxtu wu nekk ñu fas yéene euh, tàmbali jàng ñaari kaamil su ko defee am nañ taw feex ju rëy nag mooy ginnaaw bi ñu ko xalaatee mooy lu rafet ñu wax ko sëriñ bi sëriñ bi nangul leen ko ba noonu ngeen ko gisee sëriñ bi moo leen di xatmul euh, kaamil bi gis ngeen ko noonu waaye sëriñ bi it moo leen di ubbilaat beneen kaamil bi loolu di tawféex ju rëy joo xam ni sëriñ Fallou Mbacke moom sëriñ Abdou Khadir may na ko mbooloo mi nga xam ne ñoo ànd ak moom di liggéeyal sëriñ tubaa nga xam ni waxtu juróom wu nekk rek eh, danañ jàng li nga xam ne mooy ñaari kaamil ba juróomi waxtu yi jeex muy lu am solo ànd ak boot ànd ak euh, Euh, njàng mi nga xam ne jàng nañ ko jiital muy lu am solo lool macha allah lool loola waral ñu nekk sëriñ Abdou Khadir jàlloo nga xam ne mooy wax ci turu mbooloo mi gis ngeen ko mbooloo noonu euh, ñoom ñëpp rek kenn ko ne yaa ngi yor ab jukki ñu àndandoo di jàng li nga xamante ne mooy alquran bi euh, sëriñ Abdou Khadir mu mel ni li initiative bu am solo la ma bàyyi rek nga leeralal nu ko incha allahu taala. ñuy barkelu di màggal bés bu tedd bii nga xam ne mooy bésu Cheikh Abdou di bésu jullit yëpp màggal gi nag ñu teg ko ci ni ko borom ni ko lislaam bëggee rek loolu na ko Cheikh Mouhamad Fadel ah noonu lañu ko digalee it ndax li yëpp ci xalaatam la ak mbaaxam ak ndigalam mooy ni nga ko laajee noonu naaw sëñ bee ko tàmbali ci fajar gi incha allah bi mu ñëwee ah biñ jullee fajar ba noppi tàmbali na kaamil bi ah, mbooloo mi ànd koog moom jàng fi ñaari kaamil yu fajar ñaari kaamil yooyu nag sëñ bi bi mu jullee ta ba noppi xatmu na ko ñaanal mbooloo mi tàmbaliwaat ñaari kaamil yi nga xam ne jël na takku tàkkusaan noonu la koy toppee timis ba muy jurali juróom yëpp di fukki kaamil yoo xam ne dañ ko àddiyal Cheikh Abdoul Khadir ci bésam bi di ñaan nag sama ci mbaaxam mu nangul ñu lépp ci barke Cheikh Abdoul Khadir waaye nag ànd nag daara daara yi nga xam ne ñoo nekk ci Touba yëpp ak li ko wër boobu ba léegi daara yi bëri nekk ñoom ñëpp ñu ngi jàng kaamil boole ko fukki kaamil yoo xam ne njabootu kër gi ñoo ko jàng ci ndigalu sëriñ bi njiitam waaye di sant nag it rek euh, ci ndigal ci turu sëriñ bi ki nga xam ne mooy sunu kilifa di Cheikh Abdou Samad Mbacké ibnu Cheikh Soy bu Mbacké ibnu Cheikhul Khadim ci initiative yi nga xam ne da koy sonn ci lislaam di ko sonn ci diine ji di ko sonn ci tarixe bi di ko ñaanal ci barke Sëriñ Abdou Khadir bés bi sama borom guddal fanam wëral cëram moom magam ji Cheikh Mouhamadou Mountakha ak magam ji Cheikh Mouhamadou Faral di borom kër gi yan na sama borom kàttanal leen ba lépp lu yéene liggéey lislaam ci toolu sëñ Tuubaa bi sama borom defal leen ko ñu ànd ñoom di ñaanal seen site bi li ngeen ci yéene bëgg ko ci lislaam lépp yàlla defal leen ko ba ngeen am ci lu kawe seen njort ci barke borom màggal ji waa kay jërë ngeen jëf mbokk xam ne yéen a ngi seetaan seen télévision a samadiyya TV ñu ngi santaat yàlla bu baax a baax eh, ci tawfix ji nga xam ne defal na nañu ko macha allah ñu koy taxaw ci njabootu Serigne Touba gi yëpp rek eh, tey jii nag di bis bi nga xam ne ci la ñuy fàttaliku Serigne Abdoul Khadir noonu ngeen ko gisee mbooleem njaboot gett ni mu amee ci yeneen kër yi noonu la amee fii nga xamante ni eh, mooy kër Serigne Fallou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadir mbooloo mi jóge nañ fenn fu ne noonu ngeen ko gisee ñëw di ko ziara seen ziar waaye moo xam daayira la moo xam fédération yi la moo xam bokk ñoom ñëpp ñëw nañ euh, fii ci kër gi moom it di amal seen ziar comme niñ ko amalee ci yeneen ñaan suñu borom mu defal na tawfiq waaxiru daawaan alhamdulilahi rabbil alamin man ngeen a wéy di ànd ak seen programme télévision As-Samadiyya di ñaan suñu borom defal leen tawfiq salaamaaleykum wa